Thank you. Dakar Plateau bi Médina bi Fass Colobane Gueule Tapée na ñëpp génn waa Bawol na ñëpp génn jàppale ko ci bisam bii mu jëm. nit ñi bi nga xam ne mooy mooy diwaanam biir ko ñoom di Pikine en tant que mobilisation ñu ngi violence yi am ci làmb ji yéen en tant que mbër ban message ngeen di lancé. waaw boo xoolee amateur yi nekk ci làmb ji yëpp ay Bawol Bawol lañ ñoo si ëpp te amateur mooy sañse ba rafet ñëw stade dagg biyam bu seer toog bu làmb jeexee mu ñibbi làmb rek moo ko ñor kon ku xam waa Bawol xam waa Dakar Plateau xam ne ñoom non à la violence la ñuy demee te loolu ñu ñaan yàlla aussi tamit ñu bëri ko si jàmm yàlla may ñu dem si jàmm benn kenn bañ ci xoosu waaw. mais est-ce que bi ngeen di bëri ak combat bi ak combat yi différence. waaw fii combat boo jugee bi ngay demaat day am différence combat yemuñu adversaire boo jugee rek ak beneen bi ngay demaat du bokk mais loo ci mën di dégg daal mooy Tapha Tine waaj na lépp lu mu war a waaj waaw combat bi daal pare na si lépp lu mu war a pare. leneen desitu fi loolu ñaanal ko yàlla rek mu suturaal ko may ko ndam. lan xam ngeen ki muy dajal. xam nañ ki muy dajal rek Tapha Tine fu ñu koy conseillé ci làmb di ko wax li nga war a def wala li nga war a def moom xam na li ko war ci bis bi leneen lañ koy ñaanal mooy ndam en tout cas pare na daal lépp li mu war a def moom lépp li mu waroon def ci bis def na ko dañuy lancer message rek gars génn dooleel ko yokk doole yàlla suturaal ko may ko ndam tey Diourbel du des gannaaw donc li tax ñu engagé wu ci terrain bi jeunesse bi maa leen di wax nit ñi nga xool dafa am na pour nit bu koy sàcc boo xam ne lancé nañ ko Diourbel Diourbel kan war nañu wax ba taw ca kanam ba ba nit ñi fa kanam ñi fa ginnaaw lépp lu combat bi laaj danañ ko def danañ ma tiim ne toute la jeunesse bi dana dina sa ginnaaw le plus tôt ñu rencontre la victoire ñu ànd dem keroog ba am comme Diourbel wàcce li nga xam ne mooy drapeau bi ñu jox ko bëri yoo xam ne ñoo ko teew di ñu ñaanal dañuy tàllal loxo yi nag bëri na ay kàngam bëri na ay borom xam-xam bëri na ay borom doole man de jàppee taxaw seen boppam moom la gën a man maa ngi ginnaaw taxawaat yi yor ñaari doole maa ngi kar autorité yi ñu ngi doon may seetaan leen jàppale leen leen man de maa ngi dem ba njëm daan kàtt ñu taxaw laaj su nekk ñu laaj leen leen ci taxawaat yi yéen daal leen dimbal daal tey ñu ne mooy Badar fierté Bawol gépp surtout li nga xam ne mooy askan Refane kon wax ji du bëri dañuy ñëw rek jàppale ko du ñu mënoon a suppekoo suuf taq suuf taq puudar sax ñëw def ko fekk moom dañ koy def parce que ñun lamb day daw ci suñu deret te Tapha dafa nekk koo xam ne dafa mérite le soutien de tout Refane donc kon bu ma teewee fii lu ma war la man jooy naa tàcc naa yuuxu naa ngir Tapha Tine te tey laa ko gën a mën loolu rek moo ma fi indi maa ngi sant ñëpp di lancer un appel ñi nga xam ne mooy waa Refan Tapha Tine nekkatul sax nitu Refan dafa nekk nitu Bawol nitu Sénégal donc kon képp autorité politique nekk Refan wala nga nekk ci département de Bambey ñu ngi lay lancer un appel nga ñëw soutenir Tapha Tine le champion

ñëpp la àndal kon maire yi nga xam ne dañoo nekk ci biir Bawol di woowoon ne dañuy renouveler suñu appel pour que ñu jàppale asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu képp ku fi teew ci stade bi tey di leen jéeglu di leen wax monsieur Thiono di sant yàlla julli ci yonent bi di gërëm suma ñaari waajur comme ni ma koy waxee di nuyu waa Bawol yëpp di nuyu képp ku xam tabatum ak képp ku teew ci stade ngi nuyu ñëpp diggu njàmbur njàmbur wala saalum saalum wala kajoor kajoor maa ngi nuyu ñëpp di kontaan ci ñëpp comme ni nga koy waxee yi soose maninke manjaago ak joolaa yi ak suñu mbokki chrétien yi aussi maa ngi leen di nuyu ñoom di ñaan jàmm si dëkk bi yàlla dëkk stable mu a am benn histoire waaw bu loolu ku ne xam na ne ci bés la ñu jëm ñun ñëpp te yaakaar naa ne xam na ne bés bu ñu jëm muy suma diggante ak Boy Niang mu nekk lamb mag yoo xam ne bu dàqul ci saison bi mën naa ne deuxième lay jël yàlla nay lamb bi fi dàq te yàlla may ñu ci ndam amiin amiin loolu weesoo nag maa ngi ñaawlu li nga xam ne moo xew passé instant mu diggante Papa Sow ak di ko ñaawlu man am na vidéo yooyu du ko seetaan parce que man baraay violence du ma ci dox Tapha Tine mu ko xam mën naa ne def naa seize dix-sept de carrière kenn mosul tey ñu ne kaa leen àtte Tapha fii samay affaire bi Tapha Tine yàlla tax lañ mel man loolaa gis ci comprendre kon nag ñu ngi ñaaw ñu xam nga ñi koy def bu fekkee ay nit ñoom la ak seen sago nañu ko bàyyi quoi parce que du image bu rafet des fois ko wax nawetaan da ngay wax làmb te actuellement nawetaan bi tëj nañu ko te lii xew nii muy ñaar bi ñett ci ñu si. te bu jëmee ci ñu rek du baax parce que lamb ji li ci yaakaar dafa bëri ñun mën nañu xëj na ñooy grand yi mais tam il faut ñu sóoraale suñu xale yi nekk suñu ginnaaw waaw bu loolu weesoo nag maa ngi sant sama mbokki lutteurs yi nga xam ne ñoom laa bokkal tund bool yëpp tey ku ñu gis na boolu tey ñoom ñëpp teew nañ fii comme ma ku ma ci lim rek yaa problème. waaw waaye rek ñoom ñëpp maa leen di sant di leen gërëm di kontaan ci ñoom. Moussa Dioum laa ciy cité teg nuyoo bi ci loxo mu tegal ñu ko ci booy yëpp yaakaar naa ñun ñëpp mooy suñu grand fii kon foofu mot na bu loolu weesoo nag maay sant waa Medina aussi waa Fass Gueule Tapée Colobane Medina Rebeuss Niacoulter ak pompier nga xam ne ñoo seq zone bii ñu nekk ak Dakar Plateau bi aussi di sant aussi le maire Bamba Fall bi nekk fii di ko nuyu waa Passage. waaye bu ngeen weesoo aussi di sant aussi sama président écurie ñu koy wax Fallou Faye nga xam ne sànq bi mooy jël kaddu léegi ak Pape Thiam Pape Thiam suma xarit ñoom ñëpp nekk ci policier ak Bada Bada Ñing ñoom mère Djib Thiaw xam nga ñoom ñëpp maa ngi leen di ak Annette Dieng xam nga ñoo ñëpp sumay nit lañ ay ñoom daaw de tin xam nga ñoom ñëpp maa ngi yaakaar naa précis Fallou Faye message bi jàllale na ko maître Pape Sène aussi maa koy nuyu waroon na fii teew bu ndondal mais yaakaar naa yor na fi délégation quoi ñoom ñëpp ñu ngi pare combat wax dëgg yàlla seen ay soutien ñëw na sama tonton aussi Mor Ngom maa koy nuyu di nuyu aussi Moustapha Fifel Lo sama turando El Postero maa ngi koy nuyu aussi ku may jàppale wax dëgg yàlla. ay ca ñoom su ñu loolu ñëpp maa ngi leen di nuyu aussi xam nga ak ñoom madame Mbacke bi ñu bokkal liggéey bi. jërëjëf bu loolu weesoo aussi di nuyu suma asan papa Thioune ak El Hadj nga xam ne tout ça ñu ngi ci ginnaaw Tafaati di liggéey ak moom waaw di santaat yàlla bu baax di gërëm waajur yi xam nga di nuyu mëndu lam yëpp di leen wax bismillahi rahmaani rahim. waaw kon ñu dem ci question yi waaw léegi Tafa. tey dañu gis tey dañu gis nga am combat nga woo tund Bawol gépp woo say mag woo ba woo responsable politique yi ñu gis nga nga woo ko ba woo responsable politique yi bis bi moo ñu toll wala adversaire bi ngay dajal moo toll noonu xam nga bés bés dañ koy sànq man dama sànq bés bàyyi benn nganaay te man lam bi mel na ni kuy doog a bëre grand combat ci stade Diop fii laa bëre woon sama premier grand combat su ma deuxième combat bi fii laa ko defee te lam bi mel na ni kuy doog a dóor te boo yi may liggéeyandoo ensemble xam nañ ci dara te balaa ngeen cee xam dara ñëw ci bés incha allah. daara daara lu mu koy wax. I am working night and day maa ngi liggéey any time aw ma. big name yi nekk ci lam ji man Tapha Tine maa leen daan kon aw ma benn benn combat bu may jaaxal aw ma dara lu ma koy wax. du noonu adversaire la nag liggéey na boobu yàlla may ko mu daje Tapha Tine bu bés ba bu baax a baax. waaw même coach yooyu booy ñëw rek. Mm-hmm. loolu laa la wax sànq. Mm-hmm. ma ne la aw ma dara. Mm-hmm. aw ma dara lu ma koy wax quoi. combat la moom xam na ne am naa combat def ko signé ma signé ko man xam na ne am naa combat maa ngi pare mi ngi pare ñu ngi liggéey li ñu war a liggéey li ñu liggéey nag bu bés baa la ñu koy waay arrière incha allahu rabi amul leneen. seen combat dina am xeex yéen ñaar. non bëre bëre lañu wax tey bëre sampal bi yaatu boo demee ci àgg wala nga dem ci ay yomb na quoi comprendre nga may ne ñuy def bëre sampal yëpp sumay gaañ lañ xam nga mais li bëre bëre lañu wax quoi. bëri door kon xeex xeex dafa si nit ñi. exemple exemple boo bàyyi dara da ngay bëri di xeex quoi loolu la amul leneen. da ngay bëri di xeex man ma di wax naka nga préparé combat bi est-ce que combat bi ni nga ko préparé ak ni nga doon préparé yeneen combat yi benn la. mooy li ma la wax sànq dafa mel ni ku doog a bëri. lan moo waral ko ndax lan. ngir fonk bu ma fonk combat bi gisee wu ma fenn lépp fii laa ko liggéey lépp lu ma am Sénégal ci place yi laa ko amee ci salle bi nekk Sénégal laa ko amee quoi amee ma ko feneen. saa ko seet mu mel ni combat na fi dem ba bitim réew. préparé combat bi. waaw ni mu waree fii nga toog ni préparé combat bi. waaw Sénégal ñam naa fee ñam naa fii ni ñuy pare combat kon xam naa ni ñuy pare combat ni Euh, yàggatul daal. dafa combat bi dafa mel da nga ko oyofal. mooy lu ma lox déggoo lu ma lox xanaa yow déggoo mu déggoo bi de. ak ma laa dégg. dama mel ni kuy doog a bëre premier combat ni ma ko sant woon bii moo raw. exactly. léegi léegi léegi yaa ngi yaa ngi jàkkaarloo réew mi yaa ngi jàkkaarloo booy ñaar numéro man leer na ma ni ñu nekk seen lan nga koy wax. dama la lab anglais léegi xam naa déggoo ma ba léegi quoi. ak ma laa dégg ndax exactement aw ma ak ba mooy speaking de aw ma aw ma dara aw ma dara lu ma koy wax. aw ma dara lu ma koy wax adversaire la bu ma respecté nag parce que xam naa ne champion la moom ku ma respecté la loolu suuf si laay xaar quoi incha allah mu ñëw def différence rek dem su ma yoon. non dañu bëggoon nga wax booy nga lan nga mën a préparé. non aw ma aw ma aw ma aw ma dara lu ma koy expliqué. mais ah kon yóbbante woo ko dara. aw ma dara lu ma koy yóbbante. xale bi bul fàtte ni day jàkkaarloog yow de te am na. waaw waaw waaw na arbitre bi sànni bant 30 mètres rek jóge foofu. loolu rek laa amoon li may wax quoi. li may am du ma ci dellu ginnaaw bu ma ko nee puusal dafa war a puus pas clear ah bu ma ko nee puusal dafa war loolu moo jaadu. est xam nga ni xale bi ñi mu bëree ñëpp dina ñëw ba latéral dafa leen affaire. waaw mais loolu moo baax loolu affaire am la quoi man sama affaire mooy li ma war a won ko li ma liggéey gis naa dem jéem a quoi. léegi lan ngay wax réew mi ak ñi lay waaye di sant yàlla rek di ñaan ci réew mi ak dal di waxaat aussi li ñuy xëy gis ci stade yi nañ mooy moytu di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam loolu fi nekk loolu weesoo maa ngi sant képp ku fi teewaat képp fi teew maa lay sal di la gërëm aussi di santaat aussi Fallou Faye notre papa di taxaw ñoom Daouda Fall ak ñëpp ñoom mooy si xam nga ñoom Mor Ngom xam nga ñoom ñëpp Diop Sia ñoom ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm. bu mu la a posé ñu bàyyi la bu baax di la siyaar dañu gis ne yàgg nga dugg Pikine bëre fa ak ñoom Malam a bëre fa ak ki nga xam mooy Abdou Diouf bëre fa ak Talla Gaynde bëre fa ak Ama Baldé mais défaite boobu aussi tamit say supporters bokk na ci loo ne bàyyi nañ ko seen xel nga fay duggaat jëlaat beneen xale xoolee muy Boy Niang numéro 2 est que xam nga dayoo combat bi te aussi tamit pare nga pour rectifier wu tàggoog say supporter ndax defetoo Ama Baldé. mooy li ma la wax sànq rek Modou combat bi li mu ma jaral yéen mënu ngeen koo xam xam nga du ngeen ma gis fii bëri quoi dama nekk sama bopp di liggéey jàpp sama jàpp parce que man xam naa ne am naa combat te respecté naa ko te combat laa am te maa ngi ciy liggéey incha allah. te bu ñu demee ca bés ba incha allah yàlla dina ma may ndax man loolu laa mais Abou Ndour Abou Ndour suñu doyen mi ngi nii moom moom nee na ah mu ne wàññi poids poids mi nga wàññi nee na da nga wàññi poids mooy ñam non yéen loolu ngeen gis quoi mais man gisuma loolu man man damay liggéey toog suma ay entraînement rek quoi ouais léegi ñu bàyyi la nga wax ak sénégalais wax ak ak lu lamb waaw waaw waaw di sant yàlla comme ni ñu koy wax daal xam nga di sant képp ku fi teew di sant monde lamb yëpp waaw saa tànn always tax kirib loolu dafa leer barki yonent bi. Eh, a loolu sunu géem la sama yëf yi bopp la buñ ko yëgee dinaa leen ko booy uh-huh. uh-huh. ñëw uh-huh. ku xam xam ne day jëli mbër danaan coppe sa tànk laxasu sa ndigg bari na adversaire yi mu ko def daan leen est-ce yaa ngi xaar loolu sa diggante moom bu ne coppe sa tànk laxasu sa ndigg la tey xew. li ma liggéey laa gëm quoi du man a ma liggéey laa gëm moom la mu liggéey la laa engagé quoi man li may liggéey laa gëm quoi. bu ñëwee xeex ak yow xeex samp xeex ak yow. bëre dóor la ñu a Tapha Tine kenn du ko wax ci xeex. wala boog leneen quoi leneen lay wax. waxal Tapha de la ñuy mais mooy li ma leen wax du ngeen ma dégg tout le temps combat laa am damay préparer combat xam naa lu ñuy paree combat du dégg la weesu nag weesu na ko man li suma kanam laa xool nu ma ko lijjantee nu mu gën a gaawee. wooteel ñu baal nga jot ma def différence dem su ma yem loolu la ko amul leneen. ñu baal nga wax waa Bawol ak waa réew mi. waaw di sant waa Bawol yëpp ku ne xam na ne tey ñoom ñëpp teew nañu fii hmm. maa ngi leen sant leen gërëm ñoom ñëpp. di rafetlu seen teewaay ñun ñëpp tafaati nag équipe lañ équipe ñooy liggéey ak ñoom tey moo fi newoon bi ñu may kon day compliqué comprendre li fi mu ko tey ñoom Pape Thiam xam muy ñëw teew ñun Fallou Faye suñu président écrit mën naa ne bawol yëpp ci teew ko kon loolu sant yàlla la ko bés waa ngeen gis bu baax incha allah dégg nga jël mobilisation à domicile à domicile ngay bàyyi. moom laa leen wax moom laa wax ma ne leen man sama fan si club dina mag mu ngi buntu Pikine. kon da ngeen taal bu ñu jël seen place dañuy jox seen. ah buntu Pikine mooy fan